Pape Mayel ju na ko léegi nee na am na ñu doon wax ci réseaux sociaux yi ci wax yoo xam ni tëddul fenn waaye man nag sama conscience rek lay juboon su ma defee xam naa ni maa def may jëkk a yedd sama bopp su ma deful nag bu yaboo ñépp di coow sama yoon nekku ci man duma perte sama temps ci lu amul njariñ waat ak weddi duma ci fekk déedéet man li ma gëm gëm naa ko te li ma gëm du mbindeef yàlla laa gëm yàlla laa gëm ñi fi jaar li ñu nu sant mooy yàlla